li ma jaaxal mooy. Mhm. responsabilité suñu suñu njiitu réew yi parce que aussi loolu foog ñu xam ko mënuñu toog ci ñi Afrique ñuy wax indépendance ñuy wax Afrique libre mais ñu gis tey jii suñu njiitu réew yi contrat yi ñuy wax yëpp aussi mais bu leen neexul woon wala bu taxawoon bañ mais du am mais ban responsabilité lañ ci am aussi. mais mbub. Mhm. dafa am lu yomb. Mhm. am lu jafe. ni mu yombe noonu la jafe xam nga mooy lan. ni mu yombe noonu la jafe. waaw le courage l'État. bien sûr. courage politique kenn du ko wax danga koy wax di ko doxe di ko jëfe hmm. loolu mooy courage politique li nga ci xool leen rek la. Hmm. les intérêts vitaux de la nation sénégalaise. Hmm. loolu na yombul de. comme it jafe na. kooku mooy benn ci par rapport ak question bi mu wax. insulte la. insulte bu ma déggee ñu ñuy wax sécurité alimentaire. maanaam ñun bu ñu demee ñun ba li ñuy dunde mënuñu koo bayal suñu bopp foofu la njëkk échoué absolument yàgg naa wax de Saint-Louis à Bakel y a deux cent quarante mille hectares non encore exploité deux cent quarante mille hectares Saint-Louis à kese waaw quatre vingt pour cent mhm. suuf bi c'est de l'argile bariolée mhm. maanaam ban la boo xam ne day téye humidité day téye ndox. Mhm. cela veut ni boo arrosé boo tooyalee tey boo arrosé tey. Mhm. tooyal tey jii bu la neexee nga toog 10 jours doo utiliser waat ndox. Mhm. te gàncax yi day jóg dem yoonam loolu la sama mbokk tukulóor yi mais salbindawe de passage. moom la ñuy wax ilam. maanaam bu dex gi ñëwee. xam nga mooy li ñuy wax alerte boobu ñuy wax. maanaam bu dex gi génnee. la crue la crue bu génnee. xam nga génn na gis nga buy dellu ci la ñuy samp di ji di ji di ji gis ba ji. pare nañ ci. xam nga lan moo tax ñu ñëwaat pour de pour dindi. Mhm. déqi deqi. cela veut dire que ni kon ñun. Mhm. bu ñu toogee bay perte six cent quarante mètres cubes à la seconde de l'eau qui quitte le fleuve Sénégal vers l'océan Atlantique. Mhm. te barrage jama nekk fii à sept kilomètres je ne sais pas de de euh, de l'université amuñu xam-xam wala pexe bu ñu mën a fexe. ba récupérer vingt milliards de mètres bu ndox yooyu. Mm-hmm. Mm-hmm. vingt milliards de mètres cubes. xoolal mën nañu alimenter ñun alimenter Mauritanie. Mm-hmm. alimenter Mali. milliards je te dis. de mètres cubes d'eau que tu par année. ndox mu neex. kooku mooy benn. ñaar xoolal nga yor géej. te superficies maritimes sont supérieures à tes superficies terrestres. Absolument. Tes superficies maritimes sont mille kilomètres carrés. saint lii ba Bakel tu as sept cent cinquante de côte. mënoo am sax benn usine buy defar porte sardine. ma tooñ Grand Clédor. tey jii këram ceebu jën. benn yabooy pour mu am ko fa des fois da koy poser problème. yabooy gën a cher jëndu mag non cela veut dire que ni cela veut dire que ni dire que c'est la poli c'est la politique. halieutique qui pose problème. c'est la politique de l'agriculture qui pose problème. yow am nga ay ndaw yu am kattan. Mhm. am nga ay ndaw yu jàng ba am seen ingénieur ci wàllu mbay. Mhm. am nga suuf am nga ndox. Mhm. am nga jant am nga ngelaw yow lan moo la manqué yow. nga bay sur place mais manque de volonté politique. non loolu laa la wax wala quel est le problème aussi. ministre amoo ministre manque de compétence amoo ministre de l'intérieur amoo en dix ans ministre de l'industrie boobu yan industrie la fa ubbi. dara ñett la teg sax moo a. cela veut dire que ni la. fi nga bayee. fa ngay indi fa industrie buy transformer li ñuy bay. absolument gis nga lu mel ni euh, Sokas. Mhm. mooy usine tomate boobu nekkoon euh, fële nord. Mhm. Mhm. maanaam fi ñu ko fi ñu ko fi ñuy bayee tomate bi. fa lañ koy ñëw transformer ko. fa lañ ko samp fa la ñu war a ñëw pour emballé ko fa. conditionnement. xam nga dakaar lan moo fi indi ministère. homologation prix moo leen fa war a indi. kon nit ñi duñ jóge Fuuta di ñëw. tu fais la chose en Casamance. ñun bu ñu toogee ñun Sénégal ba carte di jóge Maroc di dugg si Sénégal bu ñu toogee ñun ba ay jiw mango di jóge extérieur di dugg ci biir réew mi. Mhm. cela veut dire que ni ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp mais élite politique bi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk bi. Mhm. ñoom ñoo war a montrer la bonne voie. Mhm. boo jógee ci loolu la région de Thiès wax na ko léegi c' est la première région minière du Sénégal. superficie mu ngi toll ci six mille six cent un kilomètres sur les 6601 kilomètres carrés mon département le département de Tivaouane nga xam ne dama am fierté di ko défendre. Mhm. moo jël 3003 3121 kilomètres carrés la moitié. Mhm. c' est le département de Tivaouane. c' est le premier département des industries extractives. il y a plus de 14 industries dans ce département. Mhm. département bi wërngal këpp laa wax amul estate synthétique. sur les 18 communes. amul. marché digne de son nom. maanaam amul amul amul amul mën nañ ne tey c'est l'un des départements les plus pauvres du Sénégal. du tey nga wëlbatiku. yow dafa am lu la tënk. Mhm. li la tënk entreprise yi ak ñi nga xam ñoom ñoo fa dëkk c'est le code. Mhm. le code minier bi mujjee génn boo ñëwee chapitre six article cent euh, douze. Mhm. da lay wax sur la répartition minière. article 113 bi da lay wax fonds de péréquation et d'appui bi nga xamante ni mu ngi nekk 20 pour cent. ak beneen bi nga xam ne fonds d'appui au développement local bi nga xam mu ngi nekk 5 virgule 0 virgule 5 pour cent chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises qui exploitent s'il ne restait que ICS. ak GCO ah nga ni leen génn leen 0 virgule pour cent ci seen chiffre d'affaires hors taxe li mu wax léegi. département bi dem na yoonam cimenterie yi nekk fi yëpp à part Sococim fan lañ nekk Thiès. Mm-hmm. aéroport fu mu nekk. Thiès absolument ah. Kayar offshore profond léegi fan la bokk xay Kayar fu mu bokk du Thiès. Thiès Thiès bokk. il y a vingt huit carrières mm-hmm. ci biir région de Thiès qui sont en pleine exploitation te tey jii xoolal tey Thiès te cees gi a une frontière régionale avec la capitale sénégalaise qui Dakar moo tax ñun ñu gëm. Mm-hmm. moo tax du nit bi moo am solo mais nit ki li ngay prôné la. Mm-hmm. moo tax man ci parti bi ma bokk. Mm-hmm. docteur Abdourahmane jëf jiite ko. dafa bind livre xaatim. xam nga bokkal fu la neex kii da bokk fu ko neex kii ne bokk fu ko neex. ñun ne de la concurrence à la mm-hmm. concordance. mais aussi est-ce que yéen aussi amoon nañu part responsabilité li ngeen xam ne yëpp aussi euh, vraiment euh, tamit am na taxawaay bu leen am. ci waaw nga parce que lii xam-xam ngeen am li ngeen génne fii ci plateau bi. aussi waaw alhamdulilah bàyyi ñi ñi di jiite aussi tamit non alhamdulilah xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que tàmbaliwu ma ko wax sama leader aussi tàmbaliwu koo wax. xam nga bu ma nee leader mooy président parti bi. Mm-hmm. mais ñun ak moom nii lañ parce que li ñu gëm mooy leadership éclaté. élite intellectuelle bi ñuy prôné ak leadership éclaté bi ñuy war woote ci suñu biir. Mhm. ça dafa war a reflété wu sénégalais yi gis ci seen bopp. moo tax ñun ñu gëm ni. Mhm. dañoo war a jóge ci concurrence à la concordance vers une transition démocratique. Mhm. transition démocrate bi à la kuli àll dafa war a mën a am parce que jàpp nañ ni ñii fi nekk. ils ont montré leurs limites. ils ont montré une incompétence caractérisée et notoire. beneen bi ci des ñun ñu gëm ni cette république que nous avons aujourd'hui n'est pas une république sénégalaise c'est une république importée parce que ça ne nous ressemble pas ça ne nous rassemble pas mm -hmm. cette république république bi ñu yor nii du république Cheikh Ahmadou Bamba du république Seydi Hadji Malick du république Boukounta ainsi de suite ainsi de suite sunu mag yi fi nekk yëpp tey république bi ñu yor ñun dañu jàpp ni mooy république nasaraan yi moom lañ jël importé ko moo tax ñu war a gëm ñun sunu sookul sunu sookul mhm. sunu sookul fi ko teg fenn la xam nga mooy sur le patriotisme économique. ok ci foofu nag laay glissé. Mhm. soo ma ko mayee. Mhm. wax la rek ci ñaari mbir. après mu bàyyi ki lay door wax parce que liñ des ci li ma ciy wax rek mooy que ni. Mhm. tey jii sur les vingt neuf blocs de pétrole que sànq man dama bëggoon rek ñu départager affaire bi. moo tax may wàll ci wàllu mine bi rek yamoon ci. moo tax li ñuy wax effectivement temps bi du kii. mais dama ciy laal rek tuuti. dañ ciy def deux numéros sax euh, ci wàllu blog yi may wax. 29 blocs 29 blocs. 7 yi moo nekk en non onshore ci jéeri ji. Mhm. maanaam suuf si. 13 yi moo nekk en offshore ci géej gi ci géej gi. 9 moo nekk en ultra dip ca biir géej. Mhm. tey booy xool ca biir géej dafa am décret. Mhm. dafa am décret 2017 895 bi ñu signé au mois de mai. superficie toll ci soixante cinq mille trois cent cinq cent quarante kilomètres carrés boobu mooy ido bi ñu jox total superficie noor yi nekk quarante sept mille trois cent cinquante neuf trente neuf beneen bi nekk dix sept mille neuf cent cinq mhm. kilomètres carrés boobu lañ jox total ak beneen bi ñu joxaat total muy Rufisque offshore profond superficie yi toll. Mhm. ci dix mille trois cent cinquante sept kilomètres carrés. Mhm. waaw bu fekkee ne tey kon. dañoo jox loolu total. total moom moo jeex moom moo ne ah man gisuma dara Sénégal yi topp ci waaw waaw nee na gisul dara kon gisuñu dara. Mhm. kooku mooy lu clair. Mhm. maintenant nag nga ñëw ci bloc ñaari bloc yi nga xam ne tey moom la ñu bëgg a exploiter te yàlla dimbali ñu. Mhm. ba ñaari weer la ciy fekke incha allahu rabbi. du ci fekkee dara. te ñaari weer yooyu ci campagne ci campagne la koy fekk. non ñaari weer da ko ciy fekk xam nga lu déjà ñoom nee nañu décembre. le premier baril di génn. janvier février. Mhm. du marché l'élection yi. Mhm. Mhm. moom du candidat. kon janvier février kay clé d'or nag. ok da nga koo koy may nag léegi nag ci ma eggal boobu dafa am dafa am. Sangomar offshore profond. am Rufisque offshore profond temps bi du fi xaj moo tax du ñu jox superficie e yi ak quantité SNE waaw SNE mais foofu. am na loo xam ne état bi waxuñu ko. SNE boobu ah, li fa génn ci gaz. ñoom joxewuñu information bi c'est plus de cent treize milliards de mètres cubes de gaz gaz biy génn foofu xam nga lan la. Mhm. gaz pétrole liquéfié waaw ça n'a rien à voir ak Teranga ak Yaakaar ak GTA. Mhm. GTA suñu digganteeg Mauritanie. Mhm. gaz bi fa am moom. c'est l'un des énergies de fossiles les plus propres du monde. parce que atom atomes d'hydrogène la ak benn atome de carbone. tey jii moo tax boo déggee tubaab yi naan pollution polition polition ñi polluer xam nañ leen. Chine mooy polluer. à neuf milliards neuf cent millions de tonnes de co mhm. États-Unis topp ci. quatre milliards cinq cent ah, millions de tonnes de CO2. topp ci avec deux milliards quatre cent millions de ton de CO2. Mhm. kon ñoom nasaraan bu ñu taxawee na ni dootuñu subventionné. Mhm. xaalis. xaalis. est-ce que jëppiwuñu sax. non xam nga lu tax loolu. parce que dañuy bëgg. dañuy bëgg toujours ñun ñu nekk ay dépendant. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. si 7. moom moo géré tout ce qui touche la production sous-marine aujourd'hui intégrée bu Sangomar. ok il y a vingt trois blocs. vingt trois puits. nañ nañ aujourd'hui ma tëj foofu. jox sama grand. <laughs> parce que aujourd'hui <laughs> sur Sangomar. il y a vingt trois puits sur les vingt trois puits. il y a onze puits de production. non dix de production. yaa a onze puits yoo xamante ni injection d'eau la. Mhm. ak deux puits injection de gaz. cela veut que ni lépp. Sénégal tey li ma la mën a wax ci dëxin. Mhm. mooy le Sénégal est devenu un pays pétrolier un pays gazier un pays minier. un pays pauvre aussi. donc tey bu ñu gëmee suñu bopp. Mhm. dëggal suñu bopp. Mhm. en se basant sur ce patriotisme économique tant chanté par les Sénégalais. ñu créer une industrialisation de nos matières premières. que ça soit des produits finis ou semi finis. su ma nee fini mooy les produits légers. semi fini mooy par exemple les investissements lourds. comme le zircon comme le fer. comme le pétrole mhm. nga créer ay industrie yoo xamante ni semi lay nekk mhm. mais le Sénégal va être sur l'orbite ni bépp ak sénégalaise mhm. woo leen ñëw leen exonération fiscale yi nga xam ne moom la defal nasaraan si multinationaux yi kaay leen ñëw leen ñu defal leen ko tous les sénégalais venir investir parce que wolof dafa ni picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci suuf tous les de la diaspora vont se retourner vont ñëw investir